dossiers yi sénégalais yi di mer pareegul ci bel mu jël Mamour Diallo takkal ko ay ndomba tànk Bassirou Gueye a été cité ci benn rapport interne mu nekk loo xam c'est très grave mu jël ko takkal ko yeneen ndomba tànk xam nga fi may waxee est-ce que Mamour Diallo Bassirou Gueye ak yooyu agissement yi mel noonu sénégalais yi dañ ko war a wan que ne nii ngay utiliser justice bi sàcc yi ngay couvrir doomu jàmbur yi nga tëj ci kaso bi kan kan kan kan kan d'accorduñu amee Covid force Covid bi ngeen jël lekk ko suñu tur sàcc ko Sénégal dina war a fëgg bu woon ko ni force Covid bi ngeen sàcc àndu ñu ci xaalisu xaalis bi ngeen sàcc àndu ñu si jamono bi ñuy dee ngeen ñuy sàkketoo ci ay ay ay ay ay saako ceeb di joxante ay marché ay euh, société euh, euh, fictive di créer ay société di joxante marché ku ne di enrichir sa morom kan kan kan ànduñu si. ci fonds force Covid boobu a jël def ko seen mbiru maa gis ab rapport force Covid boobu maa gis ab rapport bu nga xamante mu ngi tukkee ci le ministre des finances euh, nee na am na ay dage yu nga xamante ne dañ leen yóbbu euh, ca kanam hôtel ba ngir ñu daal di indi ay leexal ci anam ba ñu utiliser yooyu les xaalis mais également dinañ ci ànd ak ki nga xamante ni eh, moo nekkoon euh, comptable bi euh, foofee ci établissement de santé bu Kaffrine également di directeur du fonds d'impulsion de la microfinance loolu ñu ngi ci jot mu mel ni également day rejoindre gis-gisu ñenn ñi waa wala ñu doon wax ni bu ñu punir kese les dages ministre tamit am nañ ci part de responsabilité bien sûr yi lañ bëgg a sacrifier même dages yi aussi ils sont en complicité avec leur ministre pour couvrir leur ministre dañuy dem ñoom nangoo def yi amuñu lu ñuy def lu ëmp seen ministère yi ils prennent les Sénégalais pour des moutons yii ñuy def yëpp comédie la ils vont essayer day wut ay têtes yu ñuy couper te têtes yooyu vont être volontaires parce qu'ils vont dire on va couvrir parce que derrière xam nañ après lu mu leen di dikkal wala nangam xam nañ lu leen di fay après ci suuf y' a bu milliards qui ont été volés y' des gens mën nañ la wax sax bàyyil rek yow plaide coupable ñu dugal la benn un mois wala ñu dàq la après yow toi tu auras te te nangam suuf ils font semblant de d'endormir les lii ñu def lépp mascarade la ak comédie daas yi ñooy nangu ñu sacrifier leen ñu ñëw ñu ne jël nañ daas yu jël nañ mais les sénégalais ne sont pas dupes. mais nag c'est vrai que tamit ci ci ci rapport bi euh, kenn épinglé gu ci kenn ay manquement lañ ci soulever. Ah, ay manquement kese lañ ci soulever. nii c'est bon également. xam nga sax xam nga kan rapport bi sax am na ñoo xam ne dañ ciy douter xam nga tax ñu ciy douter déglu naa le médecin. j'appelle j'ai oublié son nom là le médecin bu courageux boobu rek bu am face nii nii ci période bi. docteur Niang docteur Niang. waaw. même ni ñu ndegam yàgg rek affaire bi ñëw nii bëgg tànk affaire mu nekk benn 6 milliards c'est comme si dañoo xam que ni am na ngandam scandale de multi multi milliards ñu ne nañ buux scandale wu 6 milliards yi nii pour étouffer le, le, le plus gros du problème et tout le monde sait que ni y a mas c'est woon. na euh, te kooku du waxantu faamul fenn nga xamante ni moom nee na le fait que ñu ndegam yàgg rek benn rapport ñëw nii rek. waroon na sax tey suñu xel. que est-ce que nekkul ne dañoo bëgg a nëbbu benn affaire nii rek bu jox ñu benn yàq bu ndaw alors que le plus gros moo ngi derrière et ces gens là dañu bëgg ay fonds ci ay élections la ñu jëm nii la ñuy sàccee xaalis bi après xaalis bi yëpp day dugg seen biir xaalis bi ñu sàcc nii yëpp seen seen seen compte yàq moom la ñuy jënde askan bi après ce sont des voleurs jamono bi Sénégalais yi di dee comme ay weñ ñëpp nan bu leen génne seen kër yi kenn liggéeyatul boobu lañ doon sàcc Sénégalais yi c'est extrêmement grave ce n'est dañ ko war a contexte contextualiser jamono bi ñuy sàcc Sénégal yi ngaa war a xam ne mooy jamono bi Sénégal rëppeloo nekk à di jooy ñenn ñi lekkatu ñii mënatuñoo génn sax jënd lu ñu reere ñu leen di dóor alkaati jàpp leen ci mbedd yi comme des délinquants jamono boobu la am ay directeur ak ay ministre yu naan dañuy jënd ay ay pot de fleur di yónni seen ay chauffeur ñuy jël xaalisu bi di jël xaalisu Sénégal yi ñoom nee nañu da ngeen bëgg a def manipulation ngir mën a génnee askan bi ci mbedd mais ils ont volé ou pas mais ils ont volé y a rien à dire a bool kan moo sàcc bi boo bul xam lan moo réaction après gars est s'il y pas vol est-ce qu'il y aurait euh, récupération si l'opposition pourquoi ils ont volé comment tu peux voler ton ton ton peuple ci jamonoy Covid jamonoy Covid euh, gouvernement yi sérieux yëpp ñu ngi doon jéem a sauver peuple am ñoo xam sax dañoo toog leen seen kër ñu jox leen financièrement chaque weer ñu jéem leen dépanner mais ñii dañ doon doggali seen peuple mais même si l'opposition utilise ça contre eux mais c'est parce que il y a eu vol il y a détournement et dans des circonstances aggravantes lañ ko defee il faut tenir ni jamono bi di dee. jamono bi nga xam ne amuñu oxygène amuñu ay clinique amuñu ay lits euh, respiratoire assisté jamono boobu la ñu doon sàcc d' accord alors tout tuuti mooy signaler que ni waxtu bi bëri tul mais rapidement dof il faut ñu avancer yeneen question yi nga xamante ni naa ci am sa gis-gis euh, l' affaire Sonko Adji Sarr gis nga ñu interview bi nga xamante ni Babacar Touré Kewlo dox na ci digganteem ak Alfousseyni Gaye di gynéco bi njëkk ausculté euh, ki nga xamante ni moom moo di Adji Sarr euh, ñu gis par la suite yeneen audio yi bu jugee ci MC Niass également ñu génn beneen audio Babacar Touré Kewlo beneen audio bu dox ci diggante Gabriel Kane ak maître El Hadj Diouf donc bëri na bari na euh, mais loolu noonu yëpp tey jii ban càmban nga ci am ñeel cette affaire gis nañ tam Adji Sarr bu génn euh, di fecc Ousmane Sonko feelu ko de waa kay yow nit dof Ousmane Sonko moom en tant que maire Ziguinchor moom am na jot moom nekk naan day day day dawal vélo te am te am ay ay mbir yu urgent a nga xamante ne war na ko war a mën a régler. <laughs> xam nga man ay doon kenn man faale ma. loolu c'est une façon de. de, de casser un peu le mythe, je suis un gars comme tout le monde. Le vélo, c'est le sport. le vélo déjà say wàññi pollution beeg yu demee noonu communication bu baax a baax la il faut nga nga inciter nit ñi à que ñu ñu xam ni maire ou ministre c'est juste un homme. il faut nga waaw il des su la nit a isa yi muy xoolal mais a raison li dootu son dootu ci wax il a raison léegi bu la nit ñi jëlee bëgg la def benn euh, dara da nga leen wan que ni maire yéen ma fal c'est-à-dire que ni ñu wàccee pourquoi un ministre bu ñëwee ñu foog ni yàlla mooy ñëw il faut que nga wan nit ñu que ni je suis un gars du peuple yéen may fay vous êtes mon chef vous êtes mes chefs xam nga donc image boobu dafa baax ça rassure nit ñi xam ko kii c'est juste un humain day def sport pas de foo ak ak famille am ak ay copains garde du corps day foo ak ñoom day dawal vélo il faut que tu restes humain il faut nga wan leen que je ne suis pas un messie nangam sangam donc suis parfaitement d'accord image boobu rafetlu nañ ko mais. y a pas de dossier Adji Sarr Sonko y a y a un dossier Adji Sarr Mamour Diallo et leur clique nga gis nga nga gis nga suñu borom. ah déedéet dossier Adji Sarr Sonko moo am. ma gis suñu borom dafa yéeme gis nga ñu doon wax ni di pelli pelli ka mbelli mbelli Adji Sarr dañ koy protéger xale la. ñoom la Adji Sarr tey wëlbati ñoom ñëpp ay dëmm lañ ñoom ñëpp ay doomaraam lañ tey lu ñuy wax bu boobaa dañuy rus gàcce moo leen di rey. parce que booy bi yàgg nañ leen wax psychologie mag yi muy def avertir nañ leen madame Tall avertir nañ leen nañ leen booy bi elle est elle est vicieuse mon téléphone di jël sama ay client wu téléphone ndey xat yi wax na leen da doon sama téléphone dama ko doon fekk muy fouiller sama téléphone c'est pas la première fois donc ces gens ils ont ils en faire une sainte bu kii ndax dans le seul but d'abattre Ousmane Sonko kañ doon jéem a peindre comme lii comme lii comme là mais yàlla au final dañu war a xam ne moo yor le dernier mot ak ñi par rapport ak fi mbir yi toll te li gën a garaaw mooy xam nga gars yi xam la moo gën a garaaw xam la moo gën a garaaw xam la moo gën a garaaw bi ko juge bi woowee mu ne ko may wax ci audio bi te audio bi du ay audio da may woo ma wala après ñu dem falsifier ko de da nga maa woo ma ma enregistré suñu appel mu nekk ay audio yu authentique ñemewu ko weddi ci kanam juge parce que xam nga ko nga génnaat ci Sénégalais yi c'est-à-dire que ni bu yeewuwul xam nga léegi am na affaire dem foo xam bu fa tolloo maa tey la man je vais jusqu'au damay gëm li ma bëgg wax loolu laay wax kooku képp ku ko doon jàppale jour boobu noonu moo waroon nekk sa dernier jour bi mu wootee kooku noonu nan ko ndaw si wax ci audio bi di def nii en tout cas yéen maa ngi leen woo yéen ma bëgg jàppale seen montage yi kooku di wax gis nga loolu kase manque de respect boobu noonu waroon na tax nga ni attends mais kii elle nous prend bon quelque part man nag jot na nag ñu xool ndax amul euh, amul benn affaire qui se passe dans sa tête parce que est-ce que amul dédoublement de personnalité est que elle est pas schizophrène est-ce que elle a pas un problème psychologique parce que wala déni am ah non yooy c'est des pathologies yu nit mën a euh, moom ay gis waaw waaw non mais c'est vrai ah mën na nekk feebar aussi parce que par nit day dund benn affaire wala après mu jël mu mu jël loolu def déni ne du moom non day exister je dis que pas je dis pas c'est ça mais peut-être est-ce que jotul aussi ñu jëm a xool ay experts ñu déceler est-ce que amul dédoublement de personalité wala schizophrénie wala mu am problème psychologique. kon da nga jàpp daal ñu nekkul ak xelam.